vraiment laa doon découvrir sax euh, sama dëkkuwaay sama waa papa yi foofu parce que daanuma fa woon dem. waa lii sama camarade de promo la Astou mi ngi tudd Catherine Noer dëkk États-Unis Wisconsin dañ daan def euh, chaque année rek dañuy am benn promo buy ñëw nga xam ne daf fa dañ fay ñëw jàng fa culture africaine euh, ñu bokkoon benn module bu ñu tuddee la littérature africaine ndeysaan yàlla def ñu bokkoon chambre nañ. et j'ai beaucoup apprécié moom comme moom tamit et la beaucoup apprécié man. à l'UGB Université Gaston Berger de Saint-Louis waaw. waaw photo bii moom daanaka <laughs> moom tamit sama euh, souvenir yu bari la parce que euh, Université Gaston Berger la ba léegi maa ngi fi benn ak euh, sama camarade de promo Aïssatou Konté may nuyu ma koy nuyu ak Meta euh, ji mais tamit sama camarade promo yu bari ñu woon ci biir lii dafa spécial parce que amphithéâtre ba la. te ki doon soutenir jour bi jaar na émission souvenir muy le professeur Mary Teuw Niane soutenance thèse am la woon et ñun c'était la première fois en tant que universitaire ñuy assister à une soutenance de thèse on était yi par sa pertinence bu waxaan na naan tàccu ay et puis les mathématiciens nous nous étions des des des des des des étudiants en lettres mais dañ daan tàcc ba mujj gi jury bi dañu ah nous comprenons hein votre émotion mais vous n'avez pas le droit d'influencer le jury kon bu leen tàccooti donc muy lu ju marqué c'était la première fois ñu assisté à une thèse de doctorat avec le professeur Mary Teuw Niane que je ñu ngi si benn si groupe ñii si kanam ñëpp ay <laughs> euh, ma dendal à mi ngi tudd métu méta métu métu ah, lañu ko doon wooye waaw ñoo nekkoon tam ñoo bokkoon promotion waaw waaw photo bii def naa bi ma paree euh, université ba commencé jàngale dafa dafa bëri enseignement li tax photo bi neex ma mooy sama sama sama sama port vestimentaire parce que lu ma mën doon sol dama doon fulaar sans bopp bi parce que loolu sama choix la woon sama option la woon dama ne woon étant jeune enseignante booy jàngale dañ naan au de la de la transcription du savoir da nga war a joxe des valeurs à l' te comme boo nekkee jeune ak ñoom xaw la toll ak ñoom dañ lay bëgg dañ lay def sa idole dañ lay toppandoo da ngay gis tey nga sol sax lu noir bu subaa xale dem ut lu xaw noir yow solul moo tax ma ne boo doon ba ma doon jàngale à mon âge nii di solo ba jekk def ay perruque yoo xam ne 200000 300000 xale yi bëgg ko uti ko dem uti lu noonu je responsable. moo tax ba ma commencé jàngale ba di may amee sama détachement je n'ai jamais pris la la craie avec un greffage sur la tête j'ai toujours mis un foulard pour montrer le bon exemple aux lii université la woon. <laughs> université la woon xam nga foofu université saint yi dafa xawoon particulier déjà ñun promotion yi yu njëkk ya euh, dañ fa dañoo nekk benn monde monde boo xam ne monde à part da ngay nekk di stressé da nga chaque jour boo xëyee da nga naan est-ce que fii dinaa fi génn lii nag mu doon ñu doon fêté mardi gras alors bi ñu koy fêté ñun nag sunu sunu sunu groupe <laughs> la veille lañ doon dugg si néegi étudiants yi te góor ñeeg jigéen ñi bokkuñu effet évidemment fi ñu dëkk mais lañ doon dugg si ma rappel dañ daan dugg si kii nekk salaamaaleykum kon ça va na ngeen def yéen si jàmm amu leen caaya ah na ngeen def sala amu leen caaya noonu lañ doon def si biir ko si biir kër néeg yi <laughs> ba am sabadoor am tolu bi génn say say c'était vraiment euh, décompressant le jour même ah ñu toog suñu biir village génn ñu entre entre filles ñu fete ko à notre manière décompressé vraiment c'est de beaux souvenirs. Mm-hmm. waa kii ci kaw moom euh, mi ngi tudd Barbara Petri actuellement nii. Euh, je suis conseillère technique au ministère euh, de collectivités territoriales nekk fa le point focal de tous les maires du Sénégal de tous les élus maires et président conseil départemental contrôle kii dafa nekkoon pour un mandat donné euh, représenter la coopération décentralisée alors bi mu fa nekkee nag euh, ndeysaan bi jour bi muy dem bi mandat bi jeexee muy dem ñu koy defal pot de bi bi moom tamit dafa marqué parce que dafa toog xam nga tubaab moom en général du lu mu gëmul donc bi mu jëlee def revenir sur son bilan sur son parcours mu ne monsieur le nag permettre ma ma vraiment ma féliciter des personnes qui moo marqué ci ministère bi de par leur disponibilité de par leur de par leur mais list bi mu teg ñeenti nit la xaw ma juróom mais man la njëkk a tudd waaw loolu dafa ma dafa ma touché quoi dafa ma dafa ma marqué ci tubaab donc vraiment Barbara actuellement nii pare na ñu ko continuer mission Portugal mais balee dama koy dégg. wala ni tamit booy liggéey tamit am na yenn souplesse yoo xam ne dañ koy soxla surtout au niveau de l'administration dafa am solo. lii moom daanaka c'est une partie de la famille ndax kii ci suuf nii Marème Fall sama sama sama doom la sama doom la macha allah. et xale bu koo xam ne moom comme c'est c'est c'est c'est ses frères hein, parce que euh, mi ngi nekk si benn fratrie bu trois trois trois macha allah ñaari góor benn góor ñaari ñaari jigéen. mu am benn complicité bu boo xam ni dafa ndox sama diggante ak moom bu particulière bu ma dara métti sax moo koy njëkk yëkk <laughs> mooy njëkk yëkk ñëw dugg ma di ma di ma interroger en général c'est comme ça dans les familles dina am kenn ko xam ne moo la si gën a jege mooy dem wax ne frère bi sama yaay lii wala laa ñëw di ma defal ni defal na en à son âge macha kii ci kaw tamit c'est la famille parce que boo cousine da ngay mel ni maa ko jur mais sama deret la parce que yaayam sama cousine la dama koy wax sama yaay sama sama sa sama mag sama sœur sama sama sama lépp muy Aïda ayda Aïda Gueye Ndiaye moom moo ko jur moom ma ko tuddee moom laa njëkk am si turandoo te li tax mu neex mooy bi ma koy tuddee boobu maa ngi jàng kon tuddeewu ko pour dara seen daf ma ko tuddee ba pare li ci gën a am solo mooy tuddee na ma ko ba xale bi am un mois ma door a xam ni mucc na sax ba am doom boobu je me maa ngi université Saint-Louis ma téléphoné sama yaay noonu rek di ko laaj euh, na ngeen defoon nag waa kër gi di laajaale sama sama mag ki ma tuddee Marème mi dafa dafa nekkoon diggante may na ndax mucc na mu ne moom mucc na yëgoo ko mucc na moom am na doom bu jigéen même Aïda sax am doom bu jigéen ma ne ko lan mu a ma am na doom bu jigéen yow la ko tuddee ma seddu guy donc lu lu neex la daal waaw lu neex la ba léegi actuellement nii et les hôtesses de l'air nekk ci benn compagnie de la place kii moom dafa naa ni nit ñi xam nañ ko Waré Gana Waré Gana sekk ndeysaan euh, une grande militante de l'environnement euh, yàlla jël ko ma koy ñaanal yàlla xaar ko ajjana mu nekkoon koo xam ne dafa attaché woon ci man benn benn cofeel boo xam ni amoon na fu mu commencé mais amul fu mu fu fu mu yem dañoo bokkoon benn liggéey boo xam ne jiitu réew moo ñu ko dénkoon yàgg na ñu ñu côtoyé ensemble pendant huit mois euh, ma ma gis si moom daal ay valeur daal en ah, valeur yoo xam ne en tant que femme africain ku gëm réewam donc elle a tout donné pour son pour sa patrie donc yàlla euh, jël ko euh, amagul sax at ma koy ñaanal vraiment yàlla xaare ko na di ko rendre hommage di jaale toute sa famille aussi waaw kii moom mooy sama daanaka mooy sama yaay <laughs> mu ngi tudd Marème Marème Aw mooy sama taaw yaay bu jigéen macha allah moom laa tuddee sama doom boobu ma la woon sànq moom mooy turandoom mu nekk euh, mag bu mag mag mag bu yaru mm, mag bu yaru mag bu boo xam ne bu ñu toogee sax da yaakaar ñoo ko mag ndax moom du wax du def dara day ree rek ak toj kaas yi <laughs> mi ngi noonu Marème ma koy nuyu baax di nuyuwaale euh, son époux ba nga xam ne mooy sunu taaw muy Racine Diallo di un grand journaliste euh, pas journaliste un grand euh, euh, acteur bu nekk à la RTS la nekk RTS nag mais du journaliste kii mun naa ni tout à fait en deux là kii tamit sama sama sama xarit la dañoo dañoo xaritoo ba dañoo mujj duroo sax muy fat ña ñoo nekkoon lycée Lamine Gueye ñoo fa nekk noonu def naa seconde ba terminale actuellement elle euh, présentement mi ngi fii sax mais elle vit en Europe moom ak euh, Dieynaba Bousso c'est pareil mais kii dafa gën a yàgg parce que avant may dem étape universitaire la la ñu nekkoon te nit da ngay am xaritu démb loolu moo tax man samay samay dama fonk sama nit démb mu nekk tamit ku ku ku baax ku ku ku ku ku bëri yërmande ku mën jàppale doomu aadama borom këram tamit sama xarit di di di maire monsieur le da de Ndiaganiao maa ngi leen di nuyu baax au passage waaw kii moom moom mooy li may wax rek Diouf jox a bàyyi Samba boroom gaañ dafa naan ko yow yaay borom Njaafat yaay borom Kaolack <laughs> yaay borom Jiloor yaay borom Dakar fu la neex daagu ndax euh, sa jikko waaw yaay ju yaay yëpp a baax waaye wax dëgg yàlla ku nekk sa bos nga xam ñu koy ñaan gudd fan ak wér gu yaram ndax euh, yar nañu yiir nañu Eh, te am na sunu yërmande loolu la ñuy doyee waajur kon ñuy ñaan yàlla bàyyi ko fii ba ci kanam kanam macha allah. li ñu li ñu gën a marqué nag ci si moom mooy mooy mooy macha allah ni mu sëyee ndax euh, ñun dañoo amoon euh, dañ dañu yaraw ci famille polygame mais on n'a jamais senti que. Euh, sunu sunu sunu waajur bu góor dafa dafa amoon ay soxna tellement doxewu ko waxewu ko moom lu waaye def rek neex na ko l'essentiel daal mooy na toppatoo borom këram toppatoo euh, njabootam waaw loolu daal moo ñu gën a yéem suñu papa tam nekkoon ku ku ku naqari deret waaye euh, musu ko musu ko musu ko na musu ko mbébét musu ko jooy musu ko du jàmbatu ko daal jàmbatu ko daal donc daal mu ñu nekk mu ñu nekk ay références yoo xam ne à l'image de toutes les femmes ah, yoo nga xam ne bokkul ak sëyu tey boo leen gisee ni daan sëy ak ni daan muñ da ngay xam ni bokkul vraiment ma koy rendre un hommage moom tamit di ñaan yàlla may ko gudd fan ak wér gu mu toog toog toog bañ koy weer parce que soxal nañ ko ndax mooy suñu wéeruwaay. waaye kii mooy mooy mooy mooy sama waajur bu góor di Maurice Fall euh, nekk génn nag àdduna ñu ñaan yàlla vraiment yàlla xaare ko àjjana suuf sedd si kawam. Euh, mu nekk tamit euh, waajur boo xam ne inculqué lañu ay valeur yu bare bare bare moom dalay yar yar yar ba nga yaakaar ni nag kii bëggu la mais boo màggee ngay xam li li mu bëggoon ci yow waaw def na suñu fulla def na suñu fayda nit la koo xam ni musuma gis nit ku mënee a dimbale doomu aadama ni moom dina la dimbale si sutura dina la dimbale si si vraiment si si si jom ak ci fulaam si ñaqam te kenn du xam te neexul deret nag neexul deret waaye boo boo àddina moom boo boo dëggoo am looy bañ dinaan da nga naqar deret mais daal en tout cas daal am na yu bëri yoo xam ne tey jii si tànkam la ñuy roy pour jéem a mel ni moom parce que mënuñu mel ni moom ni mu dëggoo bu ñëwaan par exemple sama mag ju góor yi toog di waxtaan ak ay xaritam ba 10 jot bu ñëwee di leen fekk dana waaye yéen xanaa xanaa xanaa xam leen ni kër jaam ko dafa toog ba 10 heures <laughs> ñun ñi bëgg dee gàcce moom wax leen que carrément mais noonu la mel lu mu lay wax dala koy wax ci ci ci ci ci ci sa sa kanam wax la li mu lay wax bu paree pare na ci waaw nit ku dëgg la woon daal dëggoom daal ku ko ku ko fàttali ko li ngay njëkk wax si moom mooy ak dëggu waaw loolu nag ñu ko si ñu ko siy gërëm parce que loolu lañuy wut si si si waajur ay valeur te valeur yooyu euh, vraiment jàng nañ ko si parce que doom doom day day day roy waaw ñu ngi koy ñaanal vraiment euh, suuf sedd si kaw bu baax a baax baax waaw moom ndar-ndar la ndar Saint-Louis Saint-Louis la juddoo mu nga dëkk sànc ba euh, sërëm yi yëpp fa lañ dëkk papaam frère am itam ñoom ñëpp fa lañu nekk macha allah actuellement ni benn sœur lañ fa dese ah, raxam Habib Fall sam papa nga xam ne moom lañ fi desal moom tamit nelaw na bu yàggul moom tamit ñu koy ñaanal vraiment suuf sedd si kawam suuf ndar sedd si kawam euh, benn bi ñu fi daje dese muy bàjjen jaara ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam parce que fi mu ne nii mooy suñu papa fii. waa lii moom waa marché HLM la ñii la ñuy wax waa naaj bi. <laughs> waa naaj bi seen présidente nekk nale sol lu ñuul ñu tuddee ko Adjaratou Fatou Thiam waaye lépp rek euh, borom euh, tenue bu bleu bii la muy Adja Camara nga xam ni Yacine kamara mère Yacine kamara sama yaay nga xam tey jii bu ma jotee waa naaj bu jotee si man si moom lañ jaar ñu nekk ay femmes yu dynamique femmes yoo xam ne yu ma jàppale si sama liggéey ndax man xam na boo ma xoolee da nga naan femme politique la mais je suis plus femme de développement. parce que man dama gëm la politique autrement donc ñii nag li benn foire laa leen defaloon parce que comme dañuy jaay marché nekk ak man di ànd ak man te dama ne nit ku boo yëngu si loolu da ngay war leen di leen wan yoon ñu nekk ay femmes yu jàmbaar bañ ni ko di leen tuddee waa parce que xaaruñu cantine pour bu ñu dugg xëy na seen doole yem fa ñu nekk si mbedd ma di jaay moo taxoon ma utal leen benn foire ñu dem foofu def fa euh, ay ay ay ay fan yóbbu fa seen ay bagages jaay fa fortaatu yóbbu si njaboot mais ñu ay jigéenu jàmbaare ay jigéen yu dara jàppale. waaw kii moom te mooy Abdoulaye Fall mooy taawu sama yaay góor mooy euh, tey jii moo taxawaay taxaw papa comme sunu papa euh, yàlla jël na ko def na li gën moom lañ fi am. moom lañ fi am te ñun dañoo dañoo sunu papa daf ñoo daf ñoo daf ñoo tàggat ci am kilifa tey jii ñun ñëpp am nañu ñu gisee ñu ngi sant yàlla mais lu ñuy def dañ ciy waxtaan ak moom. ndaxte ñun ki nag ñu gëm hmm, si si tarika dañ ñoo wax ni carrément nit boo amul kilifa jinne di sa kilifa donc nag euh, mag moom olof ñay def ni mën ngaa mag euh, ku ne mais mënoo mag sa mag donc nag mooy sunu mag mooy suñu papa ñu jox ko cër boo xam ne tam mu delloo ñu ko lool nga xam ne lu ñuy def dañ ciy diisoo ak moom moom tam mu ñuy yar di mu ñuy di ñu wiir di ñu ñaanal di ñu di ñu wax tegal fi sa tànk tegal fi sa tànk macha allah ñu koy ñaanam tam gudd fan ak wér gu yaram. waaw photo bee moom ci kaw boo mu gisee da nga yaakaar ni xanaa man ak ñoo bokk classe mais bi sama première année la bi may jàngale bi ma génnee kii sama élève la woon dañu ko doon primé école dafa dafa dafa dafa tëj euh, ñuy ñuy primé les donc mu bokkoon si si si ñi am prix yi les lauréats ñu doon ko jox gis nga li ma doon wax sànq si fulaar bi. je me rappelle sunu principal daf ne ma yow bi ngay jël fonction dafa fekkoon weeru koor nga ñëw nag bëgg sañsa ba dee nag di musóoru ma yaakaar ni koor gi tax ngay seetlal koor gi jax nga continuer ma ne ko non non loolu sama sama kii sama option la je le fais pour appliquer ce qu'on appelle la pédagogie par l'exemple donc nii la CM Samba Gueye la foofu laa njëkk commencé jàngale balaa may dem lycée Kennedy fii tamit je suis dans euh, euh, mon élément parce que lii formation la woon formation ma doon defal xale yi sama xale yi waa koñ ak benn fondation de la place ñu dem fa ñu leen di jàngal lu wundu civisme ak citoyenneté donc formation bi sax amoon na amoon na formateur mais à un moment donné dama jël parole pour pour intervenir pour dollu ci ndax nii rek lay def sama koñ tamit bu examen di waaj jot damay jël xale yi nga xam ne ñu am ba comme jàngalekat laa candidat euh, bac yi ak candidat BFEM yi dajale leen defal leen gratuitement des révisions à la veille des examens ku ci nekk série bu ci nekk ma jël les les les les séries les les matières dominantes ñu gëstuwaat ko jàppal leen pour jàppal leen seen examen yi. kii nag moom xanaa ku ne xam ne kenn du ko présenté Sénégal muy Adjaratou Khady Mboup borom euh, borom ngoyaan mu jël ma rek bëggal boppam dëgg yàlla lu may def da ci ànd ak man. waaw mu sori ci man trop ba pare ñu bokk leneen tamit bokk sëñ Babacar si ndax moom sëñ Babacar si rek la bëgg man tamit euh, euh, kooku sama wasila la wax dëgg yàlla euh, moom tamit vraiment ma ko sant xadimu sama waajur bu góor la moom daanaka dañ naan boo boo ko boo ko bëggee retrouver rek naan Maurice Fall mu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si ndax moog Serigne Cheikh dañoo yàgg te tamit da ko dafa nekk daf da ko da koo bëgg ba amul ci moom sago Serigne Cheikh bi daan def ay conférence non seulement ñu yëpp dañuy def ñuy yóbbu ñun dañ daan jël yóbbu ñu ñëpp ñu téye dox da àppane sax mënuñu dox fu mu dem conférence daf ñuy yóbbu mais si danaa toog pour moom bu toogee sax fii Serigne Cheikh toog nii si gànnaam lay taxaw ba actuellement ni en général am na benn télé de la place boo xam ni weeru koor dañuy génne les anciennes conférences Serigne da nga koy gis si gannaaw mu taxaw sol tenue nag parce que moom il fut homme de tenue mais bi mu décroché génie civil la def si la nekk expert immobilier mais da macha allah daal toute sa vie da ko consacré à euh, këru Cheikh euh, Sey Cheikh euh, Ahmed Tidiane si bañ na ko ba fii ci Ndakaaru siège social lu Moustarchidine këram la muy Derklé donc tellement dafa sori ci ci tarixe bi ngi noonu ñi ñëpp waa kër Serigne Cheikh lañu fale yéen a ngi gis euh, l'ancien euh, ministre la Fall moo nekk noonu waaw euh, Ibrahima Fall moo nekk noonu sëñ Moustapha Sy moo nekk nele Serigne Cheikh moo taxaw nii kon nga xam ne yàgg na ak ñoom lii moom photo bu spirituel la macha allah bii ba ma demee ziyaara ji bayti lay macha allah 2019 pour la première fois sama raqi bu may tooñ ne ma ajaratu bu yite ma ne leen damaa demoon jàngi mokkal naa léegi ngi dem naa demaat pour aji mais di j'étais très jeune 2019 si laa demoon pour la première fois à la Mecque di ñaan yàlla delluwaat sëñ Moustapha Sy mu sëriñ Cheikh def naa ni sama raq benn raq bu góor ma bokkal ndey ak baay laa am ñu topp sama juste des jumeaux kenn ki sëñ Moustapha Sy lañ ko tuddee kenn ki sëñ Mansour moom moo wàññeeku sëñ Mansour donc muy wax rek. sunu ancrage si si loolu ndax sunu papa ndax moo ñu si xiirtal donc ñoom la ñu xam waaw lii moom dafa dafa dafa dafa dafa symbolique dafa symbolique euh, pour deux raisons déjà ñu ngi toog taxaw maa ngi taxaw benn institution muy le président de la république son excellence Macky Sall mais tamit ñu ngi takk ay masques masques yi rek war nañu wan ni lii ban période la muy période euh, li fi xewoon rek Covid bi di ñaan yàlla mu gëj fi dem ak jàmm ak salaam ma bokkoon nag si trente personnes yi président jëloon pour ñu saytu les mille milliards yi ñu joxe woon trente personnes la jëloon général Ndiaye nekk si à la tête ñu nekkoon de membres dans le comité de suivi des fonds force Covid. lii bi ñu paree ba def rapport bi bi ñu koy dem présenter ji au niveau de la présidence moom la woon ma de ko si sargal bu baax si confiance bi macha allah. actuellement ni dama nekk membre du au conseil des collectivités mais c'est la première responsabilité bu ma jox sànq war naa la gànna dafa naan loolu mooy premier première mission boo président Macky Sall jox cent ans boo ni trompette mais benn benn mission bu bu bu xawoon na euh, délicate la woon ñu jox ñu ko ñu liggéey ko pendant presque une année ba mu jeex ba mu jeexee nii ñu ko defee nii dañu ko defoon noonu dem ba présidence def restitution bi donc au conseil ñëw mu dugalaat ma fa euh, lii tamit ñëw lu lay ni 1000 milliards ñu def ko ci fonds Covid yi. mu tànn si Sénégal 14 million sànn 30 personnes yéen koy saytu fu xaalis bi dugg mu boole ma ci loolu cër la boo xam ni vraiment négligé ma ko di ko sant. c'est vrai que ni boo boo nekkee jeune mën nga jariñ sa réew jariñ sa réew nag Sénégal dañoo nekk ci contexte boo xam ne yaakaar ne boo nekkee ci politique rek nga ko mën mën nga ko foofu waaye nekk rek sa sa réew ngay jariñ bu fekkee nag da nekk nekk ci langue politique tamit nga teg ko ci yoon. ndaxte li ñu gis léegi tamit xaw na doy waar ndaxte man wax naa ko sànq naan man la politique autrement laa xam boo ma gisee ak les femmes laa nga xam ni développement laay gën def ak social man sama politique yëpp développement social la parce que dama ne boo demee bay politique ba nekk responsable boo mënul jariñ sa askan as néew mën ngaa dem toog parce que politique politicienne dafa xew yi kenn defatu ko bu fekkee na nga koy def tamit di nga ci yàgg te doo si gis benn benn njariñ may lancer un appel euh, aux jeunes yi nga xam ne ils sont intéressés par la politique parce que dama ne dans la vie tout est politique mais defin ba rafet donc c'est la bu naan la politique elle est sale elle est sale je dis non la politique n'est pas sale c'est la manière dont certaines personnes s'y adonnent qui est vraiment à à ñu koy ñuy defat di rek tam ñun ñu en tant que ñi nga xam ñoo si mujjee dugg ñun ñoo war a am courage changer ko bañ ni politique boo waxul dëgg bokkoo ci boo mënul njuuj njaaj bokkoo ci déedéet dañu war a def la politique des valeurs incarné ko en tant que jeune et le résultat suivra déjà je suis pas de l'APR c'est ce que beaucoup de gens font comme confusion du ma APR euh, dama sama politique politique ma koy commencé maa ngi ko commencé ak euh, FSD bi Cheikh Bamba Dièye moom laa njëkk jàng parce que il m'avait séduit de par son discours de par la façon de faire la politique à travers son papa en tant que Saint-Louisien donc ma ànd ak moom ñu def politique vraiment mais ba ma demee ba ca biir ba gis ya nga xam ne man jëf bu àndul ak uh, wax rek bu yëngul rek damay ragal ma puus nag si laa nag boobu lee nag nangootuma nekk ci gannaaw benn leader moo tax man dama def sama mouvement mais boo defee mouvement tamit c'est pour c'est pour c'est pour pour gérer c'est pour dérouler alors si ma président vraiment gisee uh, jox ma bopp tamit ma di ko jàppale wax dëgg yàlla di ko jàppale si si politique bi mais daal maa ngi sant yàlla kenn woowu moo ni ma yaa fi waxoon kenn woowu moo ni ma yaa defoon parce que dama jàpp ne bu fekkee ne politique wax lu ñaaw moo tax ngay jàll ma xam ne du ma jàll bu dee politique wax loo gëwul moo tax ngay jàll ma xam ne du ma parce que man lu ma mën laay def lu ma wax lu ma lu lu may dox tam lay def ce ma je dis en toujours en France je dis que en tant que là je, je dis ce que je fais et waaw lii moom sama sama sama sama bureau la woon au ministère si benn émission bu ñuy def si koor gi ndeysaan ak euh, sama sœur Marianne mu nekk TFM di ñaan yàlla vraiment yàlla xaari ko àjjana mu ñëwoon defal ma benn émission macha allah après yàggul dara yàlla yàlla jël ko ñu koy ñaan moom mu nekk tamit nekk référence Marianne jaar-jaar bi suuf gàtt na mais am na solo ñu koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jóge waa lii benn mission la woon au niveau de des États-Unis kii ngeen gis ni si digg bi moom mooy Alelo le président euh, des élus locaux alors euh, affaire euh, actuellement ni il ne l'est plus parce qu'il n'est plus maire donc ñun en tant que point focal des élus ko en général damay ànd ak maire yi mission mu nekkoon benn vraiment benn mission bu amul solo États-Unis boo xam ne dañoo jàngal bu baax baax baax baax si mbirum de décentralisation kii ngeen di seen nii euh, à droite mooy Amadou Sène Niang un grand euh, expert vraiment de de la décentralisation ñu ñëpp ay élus locaux lañu kii mi ngi nekk madame Diouf euh, adjointe maire fale euh, bu Dias euh, moom ak soxna si ñoom ñëpp ay élus lañu vraiment ñu defoon benn mission bu am solo États-Unis jàng fa jàng lu bari bari bari bari bari bari waaw kii moom ma ci sawar a wax parce que li ma ci intéressé mooy le diplôme parce que boo gisee li diplôme bi ñu ngi si def euh, diplôme du programme leadership politique euh, muy benn benn fondation sànq gis ngeen moom may joxe cours ma naan dafa dama yóbboon xale yi defal leen benn formation mu nekk la fond c'est pas méchant la fondation Frédéric Ebert boo xam ni dafay forme des jeunes politique en herbe maanaam ñi nga xam ne ñu ngi doon dugg si politique ñu wan leen la defee la politique de valeur alors ñu former ma man au moins j'ai été formée en 2008 mu nekk concours boo xam ne concours bu bu sélectif je me rappelle bi ñu koy plus de deux cent et quelques candidats des épreuves qui sont corrigées au niveau de l'université bi ñu paree on avait juste besoin de treize femmes treize hommes ñu jël ñu je faisais partie de la promotion 2008 deuxième promotion dañ lay former pendant une année bu ñu la former une année yooyu si une année bi c'est pas tous les jours mois bu nekk benn session la te session bi dafay nekk le weekend parce que ay étudiants ñoo si ak ak des professionnels bi ma ci génnee ba léegi euh, kii mooy secrétaire général sama mouvement mouvement bi ma nekk femme de leadership et développement ñu gën ko xam si ko fem moom mooy secrétaire général bi bu ma génnee léegi bu jotee dañuy def appel à candidature ma yóbbu ko mu def concours bi moom tamit jàll gis nga bi 2017 la woon man maa ngi def 2008 bii passé sama responsable des jeunes moom tamit dem na pour montrer que ni dans mon mouvement j'ai quand de la matière grise ay nit nañ loo xam ni dañ fa nekk pour xalaat ay nit yoo xam ne dañ fa nekk loo xam ni c'est constructif et pour les jeunes et pour les femmes parce que développement mënoo ko wax te waxoo jeunesse waxoo jigéen lii moom case des tout petits la su suñu su suñu suñu fale m H&M. case des tout petits boo gisee papalay mais ma àndal ma nga nee ci gannaaw sol mas taxaw ci gannaaw béti ja lii moom mooy suñu gox suñu yittee euh, moom mooy mouvement bi bi ma yore ni HLM vraiment ñu demoon nag ci veille ouverture des la woon mouvement bi dem si case tout petit ba bale ko ba mu set raxasal leen ba dégg naa sax euh, monitrice bi ñu ñëwee dañ ñu wax kan moo fi jaar ba mu set wecc ne ba nga xam dañoo ñëw rek ubbi rek commencé jàng ma leen di si gërëm ñoom ñëpp vraiment parce que wane nañu vraiment seen gox seen yitte la. bii moom ñu euh, ngi nekkoon euh, CM bu nekk HLM. CM euh, euh, le nouveau CM des HLM kii mooy le principal Diallo décroché na sax ndeysaan xale yi dañ ma mara dem seen bopp xam nga au niveau des HLM dama fa def benn con benn bibliothèque communale bibliothèque boo xam ni xale yi fa nekk ñëpp bu ñuy jàng fa laa bëgg ñu dem en tout cas daal di fa gëstoo def naa ko daal bi ma ko def nag si laa xamanteeg ñii léegi nag bi ma ko defee pare nag waa CM bi nii dañuy dañuy def seen seen seen semaine culturelle ñu marraine ma ko ma leen bu ma ko marraine dinaa ko nangu à une seule condition la condition mooy que ni que événement euh, cérémonie bi bañ a nekk ay folklore kese parce que en général bu nee semaine culturelle dañu yaakaar ne ay sabar la wala baal may leen bëgg ngeen ma defal ñu ne waaw ma defal leen benn proposition proposition mooy lan mooy que ni dama leen leen classe waa classe troisième yi ñi nga xam ne ay BFM BFM la ñuy def lee candidats dañuy ñëw toog mën leen œuvre au programme ñu toj ko ñu waxtaan si moom lañ def nii nag ñu toog nag def boo gisee si en face élèves yaa ngi fa teg ñu def échange sur toutes les œuvres au programme c'était vraiment fructueux. waa def naa ni àddina moom <laughs> euh, tànk nit a ngi dund moom da ngay jànkoonteeg ay ay ay tolof tolof comme ni jànkoon jànkoonteeg ay ay bànneex donc euh, yii métti bari na mais xëy na sunu ngëm mooy tax après dañ koy fàtte. mais daal yaakaar naa ni daal euh, tiis bi ma gën a marqué ba fi ma fi ma toll nii def naa ni mënul weesu ëpp sama génnu àdduna sama sama sama sama sama waajur bu góor yaakaar naa parce que euh, defoon na si ñun lu lu lu lu lu lu dëgër loo xam ni boo amul imaan da yaakaar ne bu demee sa lépp dafay ébranlé wu ndax yàlla da ko tegoon koo xam ne soutien la woon ci famille bi waaw képp koo ko mu nekkal rek vraiment dimbali na la jàppal na la ci dooleem ci sutura donc nag euh, mu wàññeeku boo boo amul tuuti imaan danga naan sama sama àdduna mën na fee jaar yàqu mën naa fee jaar torox mais heureusement bi nga xam ni am nañ imaan ba nga xam ni euh, transcende nañ ko jàll nañ si leen li ma gën a neex nag sama dund mooy année bi ma jëlee billet màkk di sama yaay am demal màkk loolu bi ma koy jox di ko def boobu maa ngi door a commencé jàngale c'est-à-dire que dama ni putu rek daal sama premier projet mooy yóbbu sama yaay mag ndax bu doon sama sago kii di sama papa sama yaay dafay fekk sama papa daanaka bi ma commencé jàngale balaa ñu may rappel sama premier salaire sax génn àdduna te mu def si man lu bari sama yaay nekk moom tamit même chose jàpp si jàpp si tey ba ñu mën a taxaw kon nag euh, vraiment euh, te li ma ci gën a neex mooy instant boobu dugguma ci lii dugguma ci politique bu doon léegi sax ñu ne ah xaalisu politique mais sama ñaq laa jël jox ko mu dem màkk mu nekk mu nekk loo xam ni vraiment fierté la boo xam ni euh, dafa ma habité ba léegi macha allah. mon plus grand regret. Euh,